Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. salaam salaam sama gars yi maa ngi leen di jaar bu wér di leen jaajëfal bon tey nag moom day ñëw wax ci li nga xam ne maanaam ay mag yu jëmm yoo xamante ni magum jëmm ñoo xam ne dañ leen di manipuler comme comme ay marionnettes dañ leen di manipuler comme ay marionnettes muy Maître El Hadji Diouf muy Aïssatou Diop Fall ay Yakham Mbaye ñu ay ay Cheikh Yérim Seck xam nga nit bu fekkee ne tu es pas capable de porter tes couilles vous m'excusez des termes en fait euh, non jaratoo dara ay Bassirou Gueye ay Moustapha Niass yéen ñoo xamante ni maanaam chaque jour vous voulez être des marionnettes c'est ça que vous voulez faire de votre vie être des marionnettes toute votre vie yu leen di diriger di leen wan ne jaaral fii jaaral ma fii jaaral ma fii jaaral ma fii moi je peux comprendre maintenant je comprends pourquoi sunu maam yi bu ñu daan jékki-jékki rek ne wax wax nit kii jaam la. maintenant je peux comprendre pourquoi ñu ko doon def parce que nit yabewul nit nii rek ñu jékki-jékki ne yow am na lu tax lu wóor lu fu ko teg parce que yenn yi jikko la c'est pas la personne mais jikko te seen jikko moom moo ñaaw en nit koo xamante ni nii deful dara mais vous voulez le jeter en pâture yéen Sénégal ngeen bañ wala nit ki ngeen bañ je peux pas comprendre quoi lan ngeen bañal Sénégalais yi en fait. kii nee na man su ma ñëwee lii dafay daj su ma ñëwee lii dafay daj te ñun ñëpp xam nañ ne loolu bu dajee tey jii Sénégal va faire un grand bond en avant mais yéen ngeen ne déedéet gaayan bi bu ñëwee dafay dafay indi affaire yoo xamante ne ñun dañu comprendre mais on ne peut pas développer un tant que indépendance financière amuñu ko tant que bu fekkee ne li ñuy dundee li ñuy dundee ñu ngi koy jëlee feneen ñun duñu mës a indépendant xam nga mais nit ki ñëw teg des projets il un projet de société ñëw ne carrément gars yi man fii laa bëgg jëm fi te sot sont des choses yoo xamante ni nii maanaam gis nga nit bu fekkee ne sax gisul silmaxa la boo ko waxee taalif ko ko ne ko kii kat lii la bëgg kooku soxlaawul sax muy gis parce que lépp parce que gis-gis gis-gis du si du si ay bët kese parce que nit dina am bët te du gis te yéen nag moo leen daal que muy Aïssatou Diop Fall que muy ñi nga xam ne daal maanaam ils sont contre. Pastef ñoo ñëpp maanaam am nañu ay bët mais du ñu gis dañoo silmaxa am nañu ay bët mais du ñu gis te ce qui est bizarre dans notre société mooy que nit ñi gis naa ko tamit si euh, li nga xam ne maanaam le fekk ñu ne Sonko tey jii nii dañ ko accusé de viol nga gis ñu bëri commencé démettre si si si si de l'autre camp naan non Sonko warul def lii wala Sonko bett na ma wala Sonko nii ak nii gars yi nit doo ko jiital ba pare nit doo ko jiital ba pare di ñàkk ci moom confiance nit boo ko jiital da ngay am ci moom confiance totale parce que sa décision sa décision mooy décision te saa yi buy jël décision da jël en ton nom ñun loolu foog ñu xam ko bu ñuy jox nit cër dañ ko koy jox ba mu mat sëkk à cent pour cent nga xam ne du ñu rocc yotaa mais ñu notre problème sénégalais mooy dañuy jox nit pouvoir ba pare nankaan di am ay njott ci moom njott yu ñaaw te ki ngay jox njott yu ñaaw gisagoo dara dara dara mu wan la lu ñàkk fayda yoragul pouvoir doon na liggéey ñu dax ko day jël xaalisam salaire xaaj ko di ko jox ay pouponnière mais kooku il est sur le bon chemin kooku au moins mais mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi partagé lu mu am xam nga Olof Njaay dafa ne kii am saret di la yóbbaale bu am ma ne bu amee avion jarta wax c'est vrai nit ki am saret di la yóbbaale bu amee avion jarta wax à moins que mu am dara lu changé si xel mi ci diggante bi c'est vrai le pouvoir moom yàllaa xam mais man le fekk ñuy wax pouvoir wala affaire yooyu jàpp naa du loo xamante ni dina ko tiital parce que fa mu nekkoon tamit c'est au cœur du pouvoir doon na am doon mënoon na am lu mu bëgg ci laay fam mënoon na ko mënoon na ko am mais il n'a jamais voulu mu dugg ci détail yooyu noonu il a toujours été clean donc gars yi may wax rek ne nga nit ak lu ñu mën a waxal suñu leader c'est à notre leader de nous éclairer mais pas l'opinion publique gis nga journaux yi boo leen di déglu muy médias yi boo leen di déglu je vous jure doo leen xam sax foo leen di taxaw te sénégalais il est très vite manipulable ñun foog ñu formaté ñu foog ñu formate waat sénégalais yi defaraat ñu parce que ñun am na lu ñu manqué mooy ñun gëmuñu suñu bopp ñàkk gëm sa bopp mooy. lu fekk nit ñëw taxaw ak yow di la wax loo xamante ne nii si sa leader ki nga xam ne nee nga moom nga bëgg ñu lay wax ci moom ngay sikki sàkk loolu warul am moom mooy personne ki la war a édifier ne la man lii laa gis lii laa def lii laa deful moom rek moo la ko mën a wax mais la reste bu leen déglu bu leen faale parce que nit doo ko jox bopp ba pare di rocc làmmiñ ça c'est pour man c'est contradictoire le fekk tamit hier tamit déglu naa tamit gars yi nga xam ne ñoo nekkoon ci émission jàkkaarloo dégg naa gars yi bëri seen i réaction dama siy jukki rek mooy gel bi nga xam ne moom mooy Gabriel Kane ba mu naan on doit accorder benn le bénéfice du doute à Adji Sarr mais Adji Sarr n'est pas l'accusé l'accusé c'est Sonko c'est Sonko qu'on doit accu qu'on doit accorder le bénéfice du doute parce que bëgg a wax bu mu la tax a wax loo xamul mën a wax bu mu tax nga wax loo xamul Adji Sarr c'est vrai nit la nit la comme ñëpp nit la comme ñëpp sénégalais la comme ñëpp te sénégalais yi def lu ko lu pire Adji Sarr même elle même pas xamul sax lu muy def parce que elle a été parce que un oui de sens que lorsqu'on peut te moom xamul sax lu muy def koo xamante ni suba ba léegi yow da nga dañ la si suba du du matin jusqu'au soir yaa ngi programmé te li ngay programmé yow xamoo ci dara dañ lay dicté ngay def te ki la koy dicté sax moom xamul sax lu muy def. un crime ne jamais parfait un crime n'est jamais parfait loolu ku jàngul sax xam na ko te duulkat moom walla fenkat chaque jour dina retourner sur ses pas ne man maa waxoon lii maa waxoon lii te di nga gis ne du concorde donc ni ku gars yi man li may wax rek mooy ñun nañ am confiance totale ci sunu leader am confiance totale ci Pastef ñu jéem a massifier dooleel parce que gars yi n'ont rien contre nous te duñ ko mës a am duñ ko mës a am da ngay dégg ñu naan les chiens de Sonko parfois même je vous dis par ironie je suis content qu'on nous appelle les chiens de Sonko parce que on a su montrer notre fidélité war nañ ko ne kenn du la laal tant que ñu ngi fi te loolu la Sénégal manqué loolu la Afrique manqué des gens qui se lèvent pour diir non il faut diir non gars yi dafa am solo ñu mën a wax taxaw nii waxante dëgg face to face ne la hey saa yi li ngay wax nii du dem mais buñ ñu bàyyi nakk-nakkal bi bàyyi naxasaala bi. ñun Sonko tey bu defoon erreur dañ koy woo ci ruq nekk grand def nga erreur mais duñ ko jébaane ci place publique bi parce que du loolu lañ séq ak moom ñoom li ñu séq ak moom mooy jub waxante dëgg mais duñ suñu duñ ko masa wax loo xamante ni nii maanaam dañuy daf ñu da koy tuutal quoi te j'ai vu ça si bi ma gisee gars yi si si net bi yenn saa yi yenn ojo yi da ngay dégg da gis gars yi naan noo man Sonko bett na ma Sonko bett na la teew dégloo goo ko. dégg goo lu mu la wax xamagoo yan preuve la ñuy interroger nit day tey nit day tey nit day tey ànd ak xel parce que bu ñëpp di waxandoo kenn du déglu kenn moo tax mun a tekk les gens di way dafa war woon génn def communication waaw waaye dafa waroon génn def communication dafa waroon génn wax li mu war a wax parce que am na ñoo xamante ni ñoo ko jiital te am na ñoo xamante ni maanaam seen xel àggul fenn fi wala dañu gaaw ils sont très vite manipulables en te l'opinion publique nee nañ seytaane waxul dëgg mais yàq na xel bro seytaane waxul dëgg mais yàq na xel donc di ko gars yi man li may wax rek mooy ñu gën a jàpp nekk au front xam ne carrément xeex bi ñun ñoo ko war a xeex xeex bi kenn ñu ko xeexal kenn duñu ñëw ñu fóotal suñu yére yu tilim parce que Sénégal tey jii comme ni ñu koy waxee rek nekk na dëkk boo xamante ni bu yeewoo rek Afrique yeewu te loolu la gars yi nànd moo tax li gars yi def ci si manifestation yeeg yooyu noonu. gars yi loolu lañ comprendre ñu dëkk bi tàkk du seen intérêt du suñu intérêt donc du coup nañu def loo xamante ni moom mooy tax société bi jëm kanam xam nga kantaan nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ay El Hadj Diouf ay Yakham Mbaye ay procureur Bassirou Gueye ay Moustapha Niasse man li ma leen di wax rek mooy gis nga xale bu ndaw sax xale bu ndaw sax boo koy jàppee di ko yónni di ko yónni bu yàggee mu fipp bu yàggee mu la saa yi man dematuma mais ñoom da kenn xamul ay lan lañ. kenn xamul ay la lañ man jëpp peux pas comprendre que une personne bu mel ni de la hauteur de euh, Moustapha Niass que je nomme l'éternel deuxième il n'a jamais au pouvoir xam naa nag moom du ko mës a ñam parce que président assemblée boobu jaral na ko lu nekk parce que le titre de <laughs> le titre de président moom moom la bëgg ci xol bi xam naa loolu lay bañ mag yi dindil ko ko xam nga te tamit il est menacé parce que bu waxulee bu waxulee li ko lu neex mag yi mag yi danaan kaan gaayen xajal ñu jël keneen xam nga te et puis sax gars yi amuñ ci moom confiance gars yi amuñ ci moom confiance le fait que ñu jël Abdoul xaw ma Mbaw tekk deuxième noonu non Macky il fait rien au hasard jamais mais nag bon di coup yooyu moom yeneen discussion la mais ñun discussion bi ñu mooy gars yi nañ am confiance totale ci Sonko am confiance total ci Pastef ñu restructuré parti bi jéem a aider ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, prison bi instant bi gars yi nekk fi di wax naan dañuy jéem a criminaliser dossier bi. Bassirou Gueye xam nga même boo ko criminalisé ñun ñun Pastef nous sommes des milliers et des milliers nous sommes des des milliers ñun nous sommes prêts à tout fair pour que Sénégal jëm kanam te yow yaa ñu koy tere criminaliser lu la neex defal lu la neex xamal ne fi nga toog di nga fa jóge par force bàyyi force di nga fa jóge te jóg bu rafet nag moo gën jóg bu ñaaw xam nga yow fi nga nekk nii dañ la fal doom dañ la fal doom te xam nga loo xam dañ laa fal moom sa baay jënd ko sa yaay jënd ko donc di coup da nga cee war a def tekk ak tey da nga war a def tekk ak tey te yéen sax xam nga man li may wax rek vous êtes tous des lâches parce que tey jii bu Sonko ñëwoon tey jii yéen a koy njëkk a raamal naan ko le président yéen a koy njëkk bu keneen ñëwoon tamit yéen a koy njëkk a raamal parce que seen seen seen seen comme li gars yi di wax épigénétique. épigénétique maanaam loolu dafa nekk seeni cellule maanaam liñ naan lu ndóobin ku ku ndóobin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw yéen moo nekk si yéen moo nekk ci yéen quoi te ñun xawma kañ la ñuy changé nag pour que Sénégal jëm kanam kañ la ñuy bëgg Sonko pour que Sénégal jëm kanam parce que bëgg Sonko mooy bëgg Sénégal bëgg Sonko mooy bëgg Afrique parce que c'est le genre de leader qui nous manque ñoo xamante nii xam nga dañuy taxaw ne ñett lii du fi am man man rëccuwuma fekkuma fekkewuma jamonoy maam Bamba fekkewuma jamonoy maam El Hadj Malick fekkewuma Aline Sitoé Diatta fekkewuma ñëw ñëpp seen i jamono mais tey jii je suis fier je suis fier de dire que bokk naa ak jamono Sonko vraiment je suis fier parce que nekk na nit koo xamante nii man man moo ma gën foofu man moo ma gën foofu je sais que moo ma gën te moo gën ñu bëri si ñun parce que li nga xam ne gars yi dañ koy nëbbatu di def moom da koy fësal. gaa yi teg seen bët donc kooku noonu du nit koo xamante nii war nañ koo néewal doole parce que tey jii moom buy xeex tamit xeexul pour ñun kese day xeex pour yéen yi nga xam ne yéen nekk ci opposition bi xeex pour ñëpp pour Sénégal pour ñëpp donc du coup gars yi nañ def atten faire très attention ci affaire yi nga xam ne moom la ñuy tenir propos yi te tamit ma koy wax rek man tuuti naa trop di ko ci xalaat di ko ci xelal mooy am na yoo xamante ni moom nee nañ tout ce qui ne tue pas tout ne bi up à lui que mu gën a jàpp te bu ko dara découragé même si fois que nit ñi hypocrisie la ñuy demee sax bu mu mës a découragé parce que boo xool tey jii Moussa ba muy jógee ba muy jógee Égypte même ñi àndoon ak moom dañ ko commencé weddi à cause de quoi parce que comment am na ñoo xamante ni ñu ngi doon comploter ci biir gis nga loolu moom bul si sonn nga life moom tànk yaa ngi dem yaa bëgg dara. yàlla bëgg la teg fenn dina la dina tegal ay ndëng sërëx yoo xamante ni chaque jour tu es obligé d'y passer te loolu noonu tant que mu ngi suñu kanam rek jàppal koi jàppal ne yaa ngi ci sur la bonne voie xam nga lan moo bon ngay dox te doo gis dara loo xamante da lay faagaagal parce que boo toogee gisu la faagaagal rek après di nga doo am noo ko doo am capacité intellectuelle ak capacité physique pour mën ko gérer parce que mosula daal comme ki nga xam ne tey jii day judd rek fekk papam nekk un Richard bés ndoole rek nga gis problème ci moom parce que tàmm ko mais yow tey jii au moins tàmm nga jànkonteel ay problème ay crise fu nekk yaa ngi xool ay solution de crise lépp njàngat la lépp njàngat la ci yow te tant que yaa ngi xam crise yi di ñëw ci yow ngay gis ngay jànkonteel ak moom ak façon bi nga koy résoudre nga ëllëg di nga dem ba benn instant boo yoree réew mi crise bu mënti ñëw di nga xam noo koy résoudre xam nga parce que jànkonte nga ay affaire jànkonte nga ay problème man na li may wax gars yi mooy ñu gën a jàpp rek xam ne suñu leader bi kenn la te yàlla tey jii moom bëgg nañu baaxal ba nga xam ne ñun on a une chance vraiment on a une chance parce que chance bi ñu am mooy dañu am dañ toll jamono boo xamante ni on a une jeunesse consciente jeunesse boo xamante ni ñëpp ñëpp ñëpp bëgg nañ Sénégal développé ñëpp bëgg nañ tey jii ñëpp di accéder au soins de première qualité xam nga ñi nga xam ne dañuy am ay problème mu feebar affaire yooyu noonu xam nga ñii di lekk à leur faim mais Sénégal dafa metti Sénégal dafa metti ñun temps yi nekkee xale da nga daan gis ay parents da génn ay muurum koor xam nga muurum koor wala ay azakaat tabaski teg saaku ceeb affaire yooyu ku nekk mu nattal la mais wax leen ma ban kër ngeen koy gis kenn nattatul muuru koor amatul amatul Sénégal kenn génnatul zakat kenn amatul muuru koor amatul ngeen ba nee na dëkk boobu mu ngi dem waaw dëkk boobu avancé wul gars yi bon gars yi de ce fait falaa leen di tàggoo ba beneen je vous aime beaucoup Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.